salaamaaleykum mbokk ñi déglu suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV tey nañu am un responsable un cadre thiessois bi nga xamante ne mu ngi fii ñu jàkkaarloog moom mu nekk suñu invité spécial ñu war a wax rek li nga xam ne moom mooy actualité mais également dugam ci APR mi nga xam ne mooy Alliance pour la République dañ koy bàyyi rek mu def présentation moom monsieur Mamadou Fall Mamadou ñu defa nga defa ñu sa présentation. jërëjëf euh, monsieur Sarr euh, man maa ngi tudd Mamadou Fall maa ngi euh, juddoo Ersan. Euh, yaroo fayu euh, fayu 2 euh, man maa ngi jànge CM Mamadou Diaw fu ñu tuddee Château d'Eau jóge fa dem lycée Malick Sy bi ma amee bac nag daal di dem jàngi bitim réew fu ñu tuddee Perpignan ma am fa licence jóge fa dem Toulouse fa laa terminé sama étude ba léegi maa ngi ñibbi si Sénégal di jàngale ci université yi en droit des transport alors euh, tey sa jaar-jaar ci biir euh, Thiès wax nga ko sa njàng ci euh, école yi nga xam ne tudd nga ko tey moom du ñu dugal nga wax ñu politique lan moo la animé lan moo la dugal nga dugg ci langue politique. politique dama màgg rek nekk ci ndax boo xoolee ñu bëri defe naa ni ci FSD/BJ lañ ma xameewul FSD/BJ maa ngi fa dugg à l'âge de 21 ans 98 bi Cheikh Abdoulaye Dièye njëkkee doon député man maa doon le président. du mouvement national des jeunes du FSDBJ. que je suis membre fondateur du FSDBJ euh, ma suis fa dem bitim euh, euh, européen international du FSDBJ. C'est ce sama cursus ki nga train de faire. FSDBJ bi ba 2005 ma xam ni man émergence Sénégal moo développement Sénégal en tant que jeune cadre euh, j'ai été contacté par les gens du PDS. Euh, Modougou, euh, PDS à Toulouse, que le secrétaire général de l'UGTEL en 2007 ba 2012. 2012 bi alternance à euh, mon frère et cousin Cheikh Bamba me rappelle pour que je puisse réintégrer le parti euh, suqat parti bi ci le ma jox coordinateur départemental de fsd donc loolu mooy doxal di doxal di doxal ba xam ni man war naa mën a jàppale président ci émergence Sénégal parce que ku ku wax politique wax émergence looloo tax le 3 décembre 2016 euh, ma daal di def sama rentrée politique officielle à la résidence La Dior euh, ñëw jàppale président ci politique am ñëw jàppale président ci suqali Sénégal ñëw jàppale président ci émergence du Sénégal alors tey le 3 décembre nga duggoon ci APR ñu ngi léegi dugg ci décembre euh, bi ngay dugg gisoon nañu fa ay kilifa yu bëri gisoon nañu fa Abdou Mbow say relation euh, Abdou Mbow sama sama frère la Abdou Mbow sama xarit la Abdou Mbow euh, sama lépp la daanaka du def dara te yëguma ko du organiser dara te yëguma ko la preuve daaw bi ñu koy nominé Thiès de l'année maa ngi woon ci staff bi bi may def rentrée politique aussi dugal na ci loxoom te vraiment moo avertir autorité thiessoise yépp ak autorité APR yëpp responsable APR yëpp moo leen avertir kon Abdou maa ngi moom ñi nga ànd di liggéey bu ngeen seetloo sax ci campagne législative yi maa ngi moom ñoo doon ànd ñëw na sama koñ ñëw na sama fief def nañu ay manifestation yu mag moo ko présider kooku loolu mooy wane ni maak moom on a de très bonnes relations politiques et de très bonnes relations amicales parce que ñoo jàngandoo Mamadou Diaw jóge fa dem lycée Malick Sy ba pare jóge fa dem université Cheikh Diop alors Mamadou bu ñuy wax tey yéen a ngi APR législative yi yéen a ngi defoon campagne euh, tey ñu bëri ñu ngi wax ni seen parti muy APR dafa nekk ci léthargie ndaxte dafa amoon patron communal boo xamante ne moo doon yëngu doon coordonner les activités du parti à Thiès mais li ñu mel gisatuñ ko tey yow est-ce que da ngay gis ni léthargie am na wala léthargie amul. Euh, man mun ma ko tuddee léthargie. Euh, xëy na liñ naan parti politique bu ci ne di nga am ay yëngu-yëngu mi ngi mel ni garab rek garab wala moo am ay doom. faw mu tóortóor te foog garab gi gësa mu tóortóori war du muy doog a am garab muy doog am ñam donc euh, man loolu laa ko tuddee rek euh, li naan euh, bato dem bato costé parti noonu lay tëddee y a de nouveaux adhérents am na ñoo xam ne dañ ciy jógee dem ci yeneen parti ñeneen aussi ñëw ñëw fi suñu parti

waaye dem gi mu dew terewul ñu ñu ngi continuer di liggéey euh, pour preuve euh, gagné nañu législative yi daanaka boo xoolee euh, xëy na joxewul consigne de vote waaye ñi nga xam ni APR lañu àndaloon yàqul dara ci seen liggéey te it jox na président victoire xëy na nag metti nañu ndax ku sañoon am au cadre bu mel ni Thierno Alassane Sall waaye nag àdduna noonu lay tëddee ñii dañuy dem ñii di ñëw ragal naa ni élection yii di jëm si. dinañu firndeel que ni que mi ngi alors euh, président Abdoulaye Wade dafa ñëw teg fi ay projets yu euh, ci Sénégal Sénégal muy première alternance ñu gis ñu na président yi yëkkati ko ci ay bu Sénégal day génn ci euh, tey ñu ñëw Macky Sall tamit ay chantier ba sax ay plan plan Sénégal émergent DC yéen en tant que ay cadre ngeen di ay responsable di tukki di dem bitim réew dugg fu ne di nekk fu ne tey yéen boo doon doon méngale maanaam boo doon def bilan yi tey Macky ak Abdoulaye Wade tey ban moo gën a taxaw. Euh, Abdoulaye Wade liggéey na euh, ndax euh, tamit ku gis nen ni nene ngi man cheminé naa ak moom comme ni mag Macky Sall semine woon ak moom ndax man 2005 laa ñëw PDS ba 2012.

plan Sénégal émergent c'est un plan Sénégal un plan qui va jusqu'en 2035 c'est osé C'est osons rêver c'est que développement il faut qu'on ait une vision le président de la République le plan Sénégal émergent et surtout euh, li PUDC c'est un euh, plan bo euh, communautaire c'est 300 et quelques milliards L'OLU vraiment c'est innovateur je pense que ni c'est à saluer parce que boo xoolee ñi amuloon courant ñu ngi am courant électrification rurale bi ñi amuloon tali ñu ngi koy am PUDC nous amuloon ay forage yëpp ñu ngi koy am ndax PUDC te ku euh, wax wax wax wax wax développement ki ministre euh, sama la dem euh, dama en tant que cadre c'est un plan boo c'est vraiment c'est innovant euh, tamit euh, plan la boo xam ne mi ngi dimbale président de la république mi ngi wone liggéeyu président de la république plan Sénégal émergent man moo ma gën a euh, séduire ci li nga xam ne moom la Macky Sall def ndax xëy na Ablaye Wade initié na les infrastructures AIBD et cetera mais président de la république ñëw na d'abali, ñëw na mosay ko ñëw na aussi yokk li nga xam ne moom président de la République Ablaye Wade aussi, ku ne état xam ne état mais aussi il faut amener sa Macky indi le plan Sénégal émergent ku ne euh, le pôle urbain de ku ne Touba ku ne le 7 décembre lañ ko kon Macky Sall ni euh, bu bu bu du ku ne ni kon président de la république man looloo tax ma gën ko jappalé diko ko xelal te it di wax ni ko su gënee mëna doubler effort mu doubler effort parce que Sénégal ñun ñoko bok bokk kenn mënu ko xar ñaar Sénégal ñun ñoko mëna défar motax man tout le temps damay lancer un appel à la matière grise de la diaspora aux jeunes cadres qui sont dans la diaspora pour ñu retourner au bercail pour le développement du Sénégal Lors la mës a œuvré depuis 2011 dans le cadre d'une association collective des cadres de la diaspora dont je suis le président

lan ngeen di xaar ci Benno wala ci APR bokk euh, ci jongante ñu jëm muy local 2019. Euh, jërëjëf monsieur Sarr euh, li nga wax am na solo trop ndax Thiès ñu bëri dañ naan Thiès dafa nekk en otage parce que ay maire opposant ñoo ko yore donc la coalition Benno Bokk Yaakaar est est comme une opposante au sein de Thiès waaye actuellement ni boo xoolee mbir mi dafa mel ni mi ngi changé ndax élection yi le passé 2014 ñom ñoo gagné woon 2019 biñu jëm ci am nañu ni la coalition Benno Bokk dakar dina renverser la tendance lan moko waral ndax bo seetloo écart bi sori won trop suñ demee ba législative la coalition Benno Bokk yakar gagné ties am ci yakar te je pense que ni limay euh, wax ñi nga xamni ñoo coalition Benno Bokk Yaakaar plus particulièrement ñi nga xamni ne ñoo APR ñu liggéey def politique de développement parce que ku ne xam na ni Thiès mooy l'avenir du Sénégal ku ne xam na ni Thiès c'est la ville carrefour ku ne xam na ni Thiès mooy sëlëba yoon bu Sénégal Thiès mooy hub du développement du Sénégal la preuve mm, AIBD bi Thiès la la preuve Ila Touba Thiès la la preuve autoroute bi nga xam ne moo nar a egg ba Saint-Louis Thiès lay jaar le sëñ Saliou doon wax naan man à part Touba Thiès a ma gënal ndax Thiès sëlëba yoon la loolu la waa APR waa coalition Benno Bokk Yaakaar mën jël développer Thiès définir des politiques définir des stratégies de développement pour que Thiès mën a jëm kanam maa ngi koy wax keroog say latir ni ko incha le 30 décembre dinaa lancer mouvement boo xam ne regrouper les cadres ressortissants de Thiès ku ne xam ne ni Thiès li fi nekk ci ay cadres li fi nekk ci ay borom xam-xam li fi nekk ci bor ay kàngam buñ ko dajale woon Thiès dina nekk la capitale Euh, du Sénégal Thiès dina nekk la capital économique du Sénégal te je pense que ni ngi Saint-Louis nekkee woon première capitale dakaar nekk ko Thiès dina mën a nangu capital économique bi Thiès dina mën a développé ba ñi nga xam ni ñoo ko jege mu yeneen régions yi développé waale parce que koo xam ne Thiès Mbour moo ko ŋànk euh, Tiwaawan euh, kaya Thiès li fi mën a sotteeku ci xéwal mais nag pour mu soppeeku ci xéwal il faut que ñun ñi nga xam ni ñun ñu nekk ci pouvoir bi ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg a gañe ëllëg mairie bi développer ay stratégie xool yan secteur mooy le secteur porteur xool leen niche yi nga xam ni moo mën a tax jeune Thiessois yi am liggéey ku na xam ne ni parce que boo amee liggéeykat sutura dafa baax te ku la ëmb ëmbal sa sa sa sa sa sànqal ëmbal sa kersa. il faut que ñu jox ndaw way liggéey il faut que ñu jox ndaw may sécurité il faut ñu jox leen développement parce que je pense que le développement ñu moo jëmal kanam Cees. Mamadou ñu bëri nag dañuy wax ni euh, président Macky Sall Cees euh, def fi dara parce que bëri woon li ñu doon wax ci ay chantier de Cees muy continuité chantier de Cees yi ñu ngi doon wax ci wàllu infrastructure du ko sànq euh, yéen loolu lan ngeen ci àddu. xëy na. Euh, buñ ñu Thiès Macky Sall defu bi dara dog naa ni wax ju xaw a yàqu la ndax président de la république euh, c' est un sénégalais président de la république euh, c' est un républicain je pense que ni deful rek Fatick deful rek Matam deful rek Ourossogui je pense président de la république mi ngi defar Thiès xëy na nee nañu Thiès dëkku Idrissa Seck la. que je salue de passage parce que vraiment c'est un Thiessois. Nous l'avons connu depuis 1994. Donc, je pense que ni euh, Macky Sall, le président Macky Sall, Miguel Thiès. Euh, bu ngeen fàttalikoo conseil des ministres décentralisé bi ñu fi defoon à Thiès defe naa ni defoon nañ fi ay ay conférence defoon nañ fi ay ay ay ay débat yoo xam ni xool yan stratégie lañ def pour développer Thiès kon kuy def loolu bañoo Thiès développé te en tant que Thiessois de souche ne natif de Thiès ma ñibbisiwaat nekk Thiès di jàngale UIT à l'université de Thiès jàngale ci yeneen universités yi xam naa ni Thiès mi ngi dox parce que Thiès bu ñu demee ba ay les multinationales comme Airbus nous nga xam que nous bëgg a fi ay institut développer le transport aérien C'est Thiès mi ngi dox te loolu loola ak euh, yi nga xam ay projet euh, lundi Inch'Allah, rabi la la rentrée universitaire donc lundi bi je pense qu'il y aura beaucoup d'autorités yoo des autorités universitaires le ministère de l'enseignement supérieur qui vont ñëw xool lañ mën def ba créer ay formation yu pour ñi nga pour ñu développer Thiès et si ñu président de la république de dara Thiès je pense que ni ce war nañ ko parce que boo xoolee ISEP. Euh, day soqali transport ferroviaire et ku na xam ne ni Thiès moom capitalu transport ferroviaire et qui ki dit transport dit le développement parce que boo xoolee transport au Sénégal le deuxième secteur bi nga développé le Sénégal à part le tourisme le transport parce que boo xoolee pour tourisme développer il faut infrastructure il faut transport te boo xoolee Thiès nag dafa ŋànk il y a le transport ferroviaire à il y a bientôt le transport aérien il y a le transport routier et donc, qui dit transport multimodal dit développement. Et donc, je pense que président de la République vous laa koy conseil. en tant que en droit des transports et des transports je pense que ni pouvons nañu développer Thiès ci jaare ko foofu jaare ko ci transport jaare ko ci infrastructure et je pense que président mi qui ci xar euh, tànk tubayam mi ngi ci président mi ngi innové Ila qu'on a ramené xam 2018 lañ ko war a euh, kii euh, inauguré ku na Thiès développé wu parce que bu ñu ba créé une institution une institution qui ni day jàngal nit ñi les métiers du rail

doomu Thiès yëpp a ngi ci woon parce que gisoon nañu fi ñoom taal ay politiciens ñëpp ñëw ne ñoom daal dañuy jàppale pour que président mën a gësu Thiès gëstu raay yi ndaxte naam sax jaadu na ñu def ay tra ay infrastructure yu lëkkale AIBD ak Ndakaaru waaye nag fa nga xam ne fa la raay fekk baax di fii ci Thiès war na nañu mën a soxali soxali société bi ba li nga xam ne mooy ci wàllu machine ci wàllu autorail ñu mun koo dooleel ba mu mën a jëlaat li nga xam ne rek moom la fi yoroon. loolu moom dama lay jox dëgg ndax euh, Thiès. Euh, Moi, Capital du rail de euh, Kenya ñaari gar la wax kon ku ne qui deuk ñaari gar won nga société bi nga ne ngank affaire rail bi ndax man duma profane ci domaine transport euh, mom suis jàng ba allo yi université droit des transports fi donc man faut naa ni ñu def conseil interministériel ou sax conseil présidentiel pour les transports surtout nak transport ferroviaire parce que bo xolé li meuna a jur intégration africaine dama weesu Sénégal dé développement du Sénégal dama ko jëlee intégration africaine transport ferroviaire moko meuna mën ndax ku né yag ngi fàttaliku na Dakar Bamako ma bi nga train mi nga xamné mo non doon Dakar jóge dem Dakar jaar Thiès dem Guinguinéo dem Tamba dem ba dem ba Mali loolu ci développement la bok te loolu foog président war na mën a ay bailleur wuti ay financement pour transport ferroviaire bi dox Sénégal te transport poumon transport ferroviaire mooy Thiès te Thiès fi la cheminée yi nekk Thiès fi la mécano yi nekk Thiès je pense que ni war nañ mën a gën euh, développer transport ferroviaire bi marche bi ñu doon def wax nañ dëgg parce que Thiès euh, société bi nga xam ne moo remplacé euh, Transrail war nañ ko mën a gën a développé mu transport qui euh, euh, société boo xam société nationale lay bokk digne de son nom et je pense que ni xëy président de la République mi ngi ci ndax boo xoolee am na ay documentaires yu bëri yoo xam koy doxal euh, pour réhabiliter le transport ferroviaire entre le Sénégal et le Mali et pourquoi pas ñu def benn corridor boo xam ni day Dakar dem ba Abidjan et pays européens nous dañ koy def da ngay Toulouse par exemple dem ba Italie jóge Italie dem ba Zurich du Zurich ñëwaat Barcelone ci loolu lépp ci transport ferroviaire lay donc je pense que ni war un euh, conseil présidentiel pour sur les transports.

li olof Njaay naan mbooloo mooy doole euh, mbooloo l'union fait la force euh, président de la République euh, ak ñi mu àndal coalition ben Bokk car je pense que ni gis nañ jariñu mouvement de soutien yi je pense que ni ñu bari dañu wax naan dafa am pléthore mouvement de soutien day indi ay xiro ŋaayoo man gis ma loolu li ma gis mooy dafa gën a dooleel mouvement bi dafa gën a dooleel Benno Bokk Yaakaar dafa gën a dooleel suñu parti mouvement de soutien nag lu baax la lu baax parce que man gisuma ci ngaañ njariñ rek laa ci gis mais nag li may lancé appel euh, en tant que militant de la paire euh, maa ngi soog a ñëw xëy na def sama deux ans c'est 2015 laa ñëw donc li may lancé mooy ñu structuré parti bi ñu structuré parti bi parce que parti bu ñu ko structuré am parce que parti pour mouvement de soutien yi gis ci il faut ñu structurer parti parce qu'un parti bien structuré dina dem jusqu'à 100 ans damay jox exemple le parti socialiste on on on nous dit très souvent que c'est le parti le plus structuré ou bien le mieux structuré au Sénégal lo tout le temps euh, dañuy renouveler sans problème voilà exactement et donc pourquoi pas ñun APR c'est vrai parti bu baisse la mais tamit parti bu mm, tekki wu ni war nañ structurer son parti dañ ko war a structurer ñu xam ku nekk fi nga parce que boo xoolee Thierno Alassane Sall moo doon coordonné cadre

conseil des ministres yi fi jàll yëpp Thiès waaye ñu doon xaar seen bopp ci nguur gi mais ñu bëri nañu daal yaakaar dafa tas ndaxte kañ fa dégg sax muy ndee muy Ramatoulaye Guèye Diop bi nga xam ne doomu Thiali la bokkoon ci cellule des cadres bu APR moom lañ jël comme ministre des femmes ñu ne dañoo gis ni mbetteel dafa am parce que Thiès waron nañ ko jox parce que ay doomam liñ fi liggéey wala bo ki nga xamne mom lañ waron jakarlo di Idrissa Seck mi nga xam ñu ngi xex rek mom bis bu ne ba heure buñ ko teurele rek ba war ko daan rek mu daal di jogaat la taxoon mu jogaat ren ne ñu ñëw ci ama Alassane Sall li ni mel ñu bëri ñu ngi euh, am maanaam ab toogaay négandiku ni daal dañuy bank seen loxo ci lépp parce que gis na ni président wala boog APR fulalu leen euh wax nañ dëgg nag ndax man fogoon naa ni euh, remaniement biñ def nii Thiès dañ ci gëna a gis seen bopp ndax man du question ni damay bay euh, ràcc jëmale sama kanam mu dëll euh, Thiès y a assez de cadres di di di di euh, félicité de passage sunu natango, sunu camarade de parti Ramatoulaye qui est devenu ministre que je salue de passage di ko wax ni ko man ubbil naa ko samay bunt pour su soxla sama xam-xam soxlaa sama appui politique intellectuel, maa ngi taxaw parce que tamit aussi nit ki aussi bu ñu ko falee danga ko war a mën a jàppale ba mu gis ci boppam Sénégal gis ci boppam kon waaye man foog naa ni président de la li mu sédd Thiès doyut ndax Thiès waroon na mën a am lu mu gàtt gàtt gàtt ñetti ministre ndax Thierno Alassane Sall moo doon coordonnateur des cadres nekkoon un cadre émérite à Thiès dem il fallait ñu wut koo xam ne kàngam la mun ko wutu pour ñu mën a jàmmal ak Idriss Seck ndax ku na xam ne nag ku ku ku gis nen ne nee ngi Idrissa Seck politicien bu xarañ la te gagné ko Thiès yombul kon il faut que des des des hommes politiques yoo xam ne il faut des leaders yoo xam ni charismatique et puis intellectuel ki nga xam ne des hommes de développement yoo xam ne mën nañu vraiment euh, vide boobu ñu mën ko combler et je pense que ni président de la République xëy na dina déglu émission bi wala moo am ci ay ko mais daal dama koy ñaax pour remaniement bi bi ñëw mu vraiment nommer des cadres thiessois parce qu'il y' a beaucoup de cadres yo xamni je pense que ne bu leen nomee dinañ mën a jàppale Ramatoulaye gën ko mën a parce que Thiès tamit nangu ko yombul. Hmm. nangu ko yombul alors euh, sank wax nga ko même léegi wax moko sa carte moy ni Thiès bëri na ay cadre maanaam secteur boo dem rek ci biir ado da nga fa fekk ay doomu Thiès yo xamni ne ñu ngi fa nekk ci ay postes yu am solo euh, tay li nga xam moy stratégie ban ngeen war teul pour que 2019. Euh, yéen a ngi wax second mandat bu président Macky Sall mais également pour euh, li nga xam rek mooy municipalité euh, stratégie bu njëkk moy massifier le parti organiser parti au niveau local au niveau national et au niveau international euh, man dina ci sawar pour wax ci ndax ku def 12 ans en France xam nga la xew xam nga li diaspora bi mën apporter ci élection présidentielle wala ci élection locale je pense que ni war nañ mëna organiser parti bi euh, comme ni ma ko structurer ko dégager des stratégies de développement je pense que des réunions hebdomadaires surtout nous les cadres les jeunes les femmes ku ci dégager cette euh, stratégie dégager ce vraiment champ bi nga xamni ding euh, véhiculer politique président bi ñu mën ko développer ñu Sénégalais yi mën ko dégg renouveler confiance en 2019 élection municipale et en 2019 élection présidentielle et je pense que pour def ko il faut que le président euh, fait appel à la diaspora à à tous les bonnes volontés yi nga xam bëgg nañ émergence du Sénégal xëcc leen ñu ñëw fu waay mën a nekk góor ak jigéen ñu woo la nga ñëw jàpp ci liggéey bi parce que je pense que ni tout le temps journalistes yi dañuy wax ay transhumance transhumance transhumance baat bu góoma ko man li ma gëm mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon xubbul wutan minal imaani bëgg sa réew bëgg sa gox ci jàmm yàlla bokk je pense que ni sénégalais yépp du euh, national comme international war nañ mën a ñëw jàpp ci liggéey bi jàpp ci mouvement benn Bokk Yaakaar Sénégal jëm kanam

et dëkk bi dafa manqué man gisuma loolu ndax man mi nga xam ni euh, je voyage un peu partout euh, gis naa ni Sénégal mi ngi dox euh, barki dem laa jógee Conakry jaar Abidjan je pense que ni Sénégal mi ngi dox bi ma ñibbisee li ma njëkk a wax mooy wax dëgg yàlla Sénégal mi ngi dox ndax waaye ku ne dëkk bi dafa mag yi xëy na da ngay tooñ rek wala ngay def intoxication waaye ku génn bitim réew ñëwaat xoolaat ni Sénégal di doxee xool autoroute yi xool projet yi surtout Diamniadio le pôle urbain de Diamniadio et vraiment je ci féliciter mon frère c'est Sy sale. vraiment président mi ngi fay def lu am solo te dama que Guinéen yi ñu vraiment pas ñu président bu mel à Ablaye Wade bu ñu président bu mel ni Macky je pense que Guinée dina développer parce que Guinée très souvent dañuy wax ni Guinée mandat la boo xam ne dafa ci mine d'or dès que le xam vraiment bu ñu homme politique Al ñu xar ñu mel ni Macky je pense que ni Guinée dina développé et donc Sénégal man gëw ma ni dëkk bi dafa et ni ñaa ngi gagné. Euh, ñu ngi ñu créé entreprise ñu ngi créé entreprise marché yi ñu ngi koy jox. Mhm. man je pense que mais également foofu euh, yaa ngi doon wax léegi euh, ci en tant que professeur. Mhm. en droit des transports. Mhm. tey ñuy wax ci wàllu colonisation. parce que am na yoo xam ne bu ñu nee AIBD tey dañ ko jox ay Turc pour ñu exploité ko pour 25 ans. ñu gis yeneen société yoo xamante ne maanaam bitim la lañ jógee. te expertise locale bi nekk fi. ñu daan gis ni sax même ci damay ñëw ci football bi. ñu daan jël ay expat yi indi leen mhm. pour ñu équipe nationale di leen fay ay millions mhm. tey doomu Sénégal nekkoon Lyon en 2002 tey moo conduire équipe bi tey ci qualification bi nga xam ne nekk na ko tey ci wàllu boobu maanaam dafa mel ni décolonisation bi ci ay këyit la rek waaye ci jëf yi toujours rek société yooyu ñoom ñooy emporte li nga xam ne mooy ressources yi. waaw loolu moom li nga wax dëgg la ndax loolu ñun ñi nga xam ni dañoo jàngoon bitim réew ba ñëw bokk nañ ci li nga xam ni moom la ñuy xeex ndax xëy na.

comme AIBD Inch'Allah, le 7 décembre dinañ ko inaugurer. man je pense que nous devons nous ko Nous a jox ndaw réew mi ñi nga xam ne fii Nous ñu juddoo fii la ñu xam dox ci réalité bi je pense que nous devons nous pour nous développer. ko bu ko Turquie pour 25 ans je trouve que c'est un peu dommage parce que Amna ay sénégalais qui sont en ñi ngi OACI am sénégalais qui sont en ñi Toulouse ñi ngi ñi ngi Fune war nous pour développer pour exploiter l'aéroport AIBD ku na xam ne ni aéroport bu rafet la boo xam ni ñëpp ñu ngi koy waxtaanee ca ubbeekuñ ko donc je pense que ni normalement war nañ ci toog xalaat ci euh, maa ngi ci bay sama tànk maa ngi ci euh, xar sama tànk tubéy wax ni diaspora bi war nañ mën a taje Sénégal organiser li ñu tuddee les assis internationales de la diaspora sénégalaise xool naka lañ mën a euh, toogee

Euh, gis nañu coût bi dafa xaw nekk coût am solo ki nga xam ne mooy opérateur bi rek moom moo ciy bénéficié loolu yëpp dañuy gis ni ay contrat la rek wala ay kii yuy def à la faveur yi nga xam ne rek mooy multinationales waaw loolu euh, man mii ci ñu ko ŋaññi ci la bokk ndax dama seetlu ni autoroute à bi dafa cher boo xoolee c'est vrai euh, kenn du wax ni kenn mënuñoo comparer ak waa Europe Europe autoroute yi boo xoolee Sénégal.

Euh, wañaar comme ni Macky Sall defoon bi mu yokkee bi waa Eiffage yokkee euh, wala Sénac bi mu yokkee autoroute à péage bi wañaar seen loxo pour ñu wàññi ko. parce que gis naa ni benn question laa bëgg a posé ñu xool naka lañ ko mën a xalaatee parce que boo xoolee aéroport bi suñ ko inauguré nit ki war a jóge Dakar war a jël volom et mu war a jël autoroute à kooku war nañ ko mën a yombalal dem ak dikkam war nañ mën a soqali transport interurbain. jéem xol nuñ mëna accompagner les taximan ak les transporteurs ba dem dik bi aéroport Diass Dakar aéroport Diass Kaolack mëna a yomb te lolu pour mu yomb il faut que ñu xolat autoroute à péage bi péage bi cher na trop te bo xolé euh, Europe da ngay daw 400 km wala 500 km, li ngay fay du mat 3500 te fii tronçon bi matul 50 km. te lolu vraiment président bu féké mën nañu ko saytuwaat.

Euh, effectivement li nga wax sank parce que lañ ko jox muy nga 2002 euh, man dañ yow 5 du matin di match au Japon Perpignan di kon euh, vraiment et puis contentement lañ am te di len ñaanal ñu am réussite 2018 te di ñaanal aussi Thiès Thiès gis ci sen bop Sénégal gis ci di gërëm Info di Len féliciter aussi euh, di len jox rendez-vous aussi 30 décembre la ngeen naan def daw mu jig len fo ngeen defat ko ren je pense que ni 30 décembre de aussi de ngeen ni euh, dina defal ay raaya Thiès waay yi nga xamni ne ñoo gën a euh, ci at di len ci féliciter di len ci accompagner di len ci talal sama loxo luñ ci wara def rek dinañ ko def di len féliciter encore une fois jërë ngeen jëf mbokk yi ak xarit ñoo seetaan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV ñu doon dalal professeur Mamadou Fall nekk militant et responsable de l'Alliance pour la République ginnaaw bu mu jébale rek ay ndomba tànkam ak i lengeem yi mu amoon ci FSDBJ moom lañ doon amal ci émission bi nga xam ne émission homme politique moom nag mu ngi joxe rendez-vous le 30 décembre ci nuit de l'internet bi nga xam ne rek dañ ciy tàbb Thiès yi gën a fës leen ay raaya pour gën leen ñaax ñu gën a njëriñ askan wi di leen jox di daje ci beneen numéro incha allah